Thank you. asalaamaaleykum sunu mbokku téléspectateurs yi ñuy à travers Thiès Media tey dañu am nag mbégte ak contentement de séti ki nga xamante mën nañ wax ni icône la ci footballu Thiès diko ko il a montré ses preuves jaar na ci euh, équipe bu mag bi ñuy wax sax Union Sportive du Rail def fi lepp li nga xamante rek mom la football war a def ci biir euh, dëkkam def nako fi dellu si nag di diko fas rek waxtaan ak mom ci ñi nga xamante euh musuñu ko xam ñu xam ko ça fait l'occasion ñi nga xam ni également gëjoon nañ ko gis mu len dan bëggal ci biir euh, terrain de football yi ñu gisat ko lolu moy nak 100 sport sur Thiès médias. su ko defee rek euh, ñu bayiko mom gan gi nga xamanteni ni lañu dalal tay mu nuyo mbokk Sénégal mu nuyo mbokk aduna bi koy sétane su ko defee rek ñu duggu xuus ci biir waxtan bi. salaamaaleykum jërëjëf Guissé euh, ba ñoo commencé ak di wax on sublime san rajim di nuyu wàcc si yépp jiite nuyoo bi ñi ñu meñ mooy sama yaay ak sama papa mi nga xamni yalla jël nako yalla suuf sen ci kawam ñu ñaanal sama yaay ak bépp waajur wo xamni ne mi ci Thiès c'est une fierté de me ñeu à travers média bi di wax ak wa Thiès man suma résumé lépp moom je suis un élément de Thiès mais Nirmal Thiès nag moom mooy dama dudd Thiès yow Thiès màgge Thiès Thiès nag di sama lépp te li wax toujours rek pour Sénégal développé wu il faut kër yi développé wu quartier yi développé wu région yi développé wu Sénégal développé wu mais aussi maa ngi nuyu ñëpp ñi nga de près ou de loin xam

fu sa ay morom yu bari jaaragul tey suñ doon laajte kan mooy Lam lan nga ñu mën a wax. xam nga adduna bi saabu du fóot boppam wax sama bopp dina ma xaw a metti lool mais yow tu es bien placé pour wax ma kan mooy Lam Tooro mais li ci mënti nekk rek mooy mën na aw sama jaar-jaar. juyoo naa Thiès màggee naa Thiès jànge naa Thiès. football na itam Thiès comme ñep ñu ko défé j'ai appris le football dans les rues ci mbedd mi la jangé football di tax di wax tamit aussi man football pour man c'est un vecteur de développement sama objectif football mo moo à chaque fois su ma footballee ba paré ma ci xarit moo tax mën naa wax ni amna ay xarit yu bëree bëri à travers ci Sénégal Thiès ñu xamni am nañu coloré jëriñ coloré le football parce que football c'est l'éducation la plus complète parce que le football tu nga defar yaram ci football tu nga ci xalaat football tu nga aussi ce comportement Mon tax ma euh, le football c'est le sport le plus complet de la vie suma commencé ci football bi commencé na comme ni ko le football ci le mi minime commencé dem ray def IASU a rien IASU commencé IASU bi sem 1 sem 2 jógee le IASU bi aussi continuer Ousmane Ngom mm-hmm. mais parallèlement ça aussi nous connaissons le football cadet IASU dem festival ya festival. festival mom moy yi nga à la fin de l'année scolaire bi. Euh, les meilleures équipes UASU de la région et puis c'était ça permettait de détecter les talents le talent montent en ce moment euh, la base nous disons, Tagat nous am lu Nous solo aussi je ci nawetaan nous sama parce que nous aussi nous fekk dimension mais affaire de koñ de ce n'est plus du xaalis du parce que ce nous ba gagné, mag yaay gune ñëppay kontaan kon c'était ce qu'on appelle l'esprit d'appartenance appartenance boobu nag moo am importance moo tax su ma nee un élément de Thiès moo déterminer lépp c'est un élément de taxi kaw moo déterminer lépp moom mooy l'appartenance ci sama quartier bu ma nekkoon su ma ko nee appartenance moom mooy yaay ju fa ne sama yaay la mag bu fa ne sama mag la nijaay ju fa ne sama nijaay la rakk ju fa ne sama sama sama sama rakk lañu

jóge fa dem football raay bi ma nekkee terminal ba ma jógee raay ma dem université euh, bi ma commencé université douane ñoo ma jëloon ma commencé entraîner presque un mois sama njàng mayu ma ko ma arrêté euh, ba ma dem quatrième année université la football gore ma footballé gore un an ensuite ma war def sama thèse mënutuma boole affaire yi ma commencé football dug noonu rek football su ma amee temps dem football yi mu bàyyi bi ma ba yooyu bi ma sama diplôme de docteur en pharmacie laa ne xam ni daal fii la ma yàlla orienté won donc ma fool bi ma jàppee ko rek sama plaisir comme ni wax ni rek dama ci dem parce que fofu la tàggat bi nek ci comportement ci valeur ci ci ci ci duggalante demlante donc so gissé même le football du Sénégal lu mu développé développé yi soo jëlee nawetaan yaa set 7000 plus 7500 ASC. 7500 ASC le fait qu'il y ait ce qu'on appelle les principes de base de football nous jël franchement si ndaw bu au Sénégal war nga une discipline si ndaw bu au Sénégal war nga un comportement. Si vous comportement au Sénégal vous avez un élément de son quartier un élément de sa ville et un élément du Sénégal parce que c'est ça qui est important

terminal la football euh, rail 95 football rail football bon j'ai am mon moom a yore woon euh, coach euh, pas Amsata pas beaucoup de Omar moi moom a yore woon bon j'étais le plus jeune la football n'est pas parce que même si on a di football à l'extérieur man néegu Thioune laa je n'ai suñ de joxee ñëpp enfant bon, il m'a couvé comme son enfant. J'étais pas trop fort, très athlétique. Je pesais 54 kg, 54 kg là woon. Et puis, c'est très frêle. Mais il faut aussi, nit ku ne rek da lay tàggat. Euh, bu mu ñëwee gis ma ma laal benn yoon euh, daf ma ci groupe bi ba ma ñëwee nit ma njëkk woo ne ma yow nit ku ne day joué ci ay valeur am ma ko loolu mooy lan mu ma bul contrôler mon daw tu as une puissance de de tir donc ça veut dire que sa agilité avec ses déplacements rek nga mën a footballé. Mm-hmm. boobu laay football 90 minutes duma me contrôler la kon Là, c'est que espace mm-hmm. teg ma guéné deuxième wala troisième gagner dougal bon buñ ko défé euh, yàlla def après ma bac dem université wa douane ñu gis ko mom moom moom dem douane waa douane gis ko mm-hmm. maa douane ma nak sa papa ba moom ba mu fee jógee xam nga nit ku ne ak waajuram mu ne gaa mën ngaa football mais daal su ma sañoon nga jàng tamit comme que man tukulër laa te man waaw laa xam ci ci mag ci baay ci lépp ma ne ko waaw ma dem douane moo commencé football mu ko am su ko appelle les travaux su bëggee da jàng moo nga def travaux pratiques ma dem fa un mois parce que daal man leen daal lii mënatuma ko ma jël daal li ñu ma jëndoon yëpp jox leen ku sama ñang def première année yàlla wërsëgal ma deuxième année troisième année mais lu képp li ma woon nek rek da bay mo football bi man kuma xam ci aduna bi je crois que ñaar ma xam la même université soit da gis ma yor sama kay di jang à partir de 17 heures mu dem football yi su football ba 19 heures jaay sama kay jàng ba 2 heures du matin man loolu mooy ma doon mooy sama mooy sama dalaay je crois que loolu sax moom topp ba légui sama dans ma vie professionnelle je ne fais que liggéey suma kuma gis fenn mooy football musuma dugg boîte de nuit xaw ma nu mu mel musuma dem ci yenn détails yi xaw ma nu mu mel xaw ma nu franchement jàng daal la ak football. voilà l'homme jàng ak football nga xamoon mais su ñu dellu siwaatee tey jii ci turu Lam bi. ku ne xam na ni tukulóor nga te am na lu muy signifie ci tukulóor ñu bëggoon na ñëw leeral ñu loolu waaw waaw ñun ñi ngi dëkk euh, dëkk bi ñuy soo demee ba Podor nga dem Njum député maire Njum sax sama papa la moo nekk Bokar Seck mais soo demee 15 kilomètres mm. fu ñuy wax ñànge idi foofu foofu laa cosaanoo ci ndey ci baay ci juróom-ñaari maam soo ñuy wax Cerno Adama Gaye doo dëgg tàgg tukulóor te waxoo ko mooy sama maam

bon donc ñooñu la ñuy wax ay ay noble lañ quoi bon mooy ça c'est l'histoire moo tax nga ma wax ko mais ce qui est important moom mooy daal Lam Tooro moom mooy buuru Tooro soo demee Fuuta y cinq contrées y a le Tooro y a le Laawo le Dumga le Damga et le Ngenaar yooyu moom mooy contrée Tooro yi moom moom mooy contrée Fuuta yi bon soo demee ba ay côté Wuro Sogi Matam foofu moom mooy Ngenaar dem ci kaw. voilà léegi lam dañuy ñëw nag ci li nga xamante ni mooy sunu club boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk. muy union sportive du Rail. Euh, ku nekk jaar nga fa yow jaar nga fa sa yeneen morom jaar fa nga def say. xamante ji xale yi nga xamante ni rek la am ci Lamtoro ñeneen ñi mag ñi nga xamni aussi doot nañ la seetaan nga nek nak fierté ci biir Thiès gi ça yoo jouer rek à chaque fois dañuy gis ni que nit ñi dañuy am envie de la seetaan tout le temps mhm. équipe bobu tay nak mo dem ba soxé jëm li nga xamante moy national. Mhm. ndax ku ne xamoon raay bi mi nek ci euh, première division ñëpp ko daan baye xel. effectivement fépp foo mës dem ci Sénégal joué bu ñu nee moy jouer mhm. tu as envie de d'y aller parce que da nga naan da ngay seetaan football bu bu nice. tay ji ñu toll fi ñu toll ni ak raay tay ji lan mo la ci gëna nakari bon euh, c'est parce que football bi dafa dafa évoluer dafa changer bu njëkk ba y avait des clubs traditionnels ñoom Jaraaf ñoom Jeanne d'Arc euh, yenn équipe yi nga ce sont des équipes traditionnelles. Maintenant, Rai Bumfuneke, parce que aussi, il euh, y avait, convoqué euh, convoqué Histoire ou Kies, Amna Rai, Amna, euh, je crois, COT. Maintenant, quand Rai l'a fait, Rai, équipe Magla, du Sénégal, bu am jarjar, am am am am am am des d'excellents comment dire encore là encadreurs dirigeants d'excellents dirigeants mais aussi soo gisee raay demoon ñu tuddee ko raay parce que bari daan am daan bénéficier une subvention de SNCF moom nous nu ñu ko sax euh, bon SNCF hein bon je sais pas nous ñu ko tuddee woon mais kay justement régie de semaine de fête du Sénégal donc financement bon bu commencer commencé sooxee nga xam football dafa xaw a parce que il faudra des moyens donc il faudra que euh, ñu ñu ci mais su ma bu ma ni raay ba national donc je crois que nous n'avons pas de responsabilité parce que nous ñëpp war mais aussi en tenant compte maintenant du contexte actuel du football Actuel du football parce que le football maintenant maintenant diriger ce n'est plus de yor sama xaalis diriger ce n'est plus du mécénat c'est du management du sport il faut savoir la manière de manager le sport pour que effectivement nous ayons un projet. Nous avons fait qu'on ait un un projet d'ici 3, 4, 5 ans. Le projet c'est un objectif commun. Qu'on ait nous avons une feuille de route claire. Nous avons fait 2 ans, 3 ans, ou un an et demi, nous déloyons la première, division. Mais il faudra aussi que le capital, tous les moyens, nous devons qui ne permettre d'aller euh, temps parce qu'il y a plus de subventions donc il faut des ressources ramener mobiliser un partenariat mais partenariat les clauses sont des clauses ça permettra de donner euh, à Rai sa légitimité mais pas dire club bi ko non non il faudra mettre un projet pour que RAI soit devenir un peu mobilisé mais ñu gis ni que depuis euh, raay di raay terrain Sayaté na mu meloon noonu la mel. Mhm. tey jii mu nekkoon ci bërëb boo xam dafa jekk ñu def ci ay projecteurs jekkoon li nga xamante aussi ñu def ko mooy synthétique nit ñëpp di ci ñëw di ci jouer. Mhm. di ci fayeeku club di ci mën di bénéficier wu. est-ce que loolu tu ne penses pas que nii war nañu mën a am ay partenaires yoo xamante ne war nañu mën a jàpp ci quoi. c'est ce que je dis c'est un environnement dans le cadre d'un projet. Mm. projet bi du rek yéeg première division projet bi c'est un environnement de faire eh, mettre tapis de faire gazon c'est une source de revenus pour Rai donc le petit projet il faudra que nous gagnions un projet boo ça permet de créer un environnement favorable pour que Rai ait ses propres moyens mais aussi Rai dans le plan de jeu puisse être à un certain niveau comme en première division c'est tax moo je projet man noonu laa sport c'est un projet un projet c'est lépp li nga xamné ne dëxën nañ dëxën ko ci ben ci ben bataxal bi nga xam day permettre ñu wax a ah, une vision claire fi lañ bëgg dem fu ñu dem fi moyens leen soxla moyens yi ni ak ni lañ koy amé contribution vente de d'action euh, euh, recette yi ñuy jëlé ci terrain bobu de partenariat qu'on loue je crois que là aussi c'est important donc moi en tant que peut-être que j'ai pas un can d'adresse fourni mais opportunité bu mu ñu ko gis na na ko les dirigeants du rail pour euh, pour euh, pour euh, pour aussi ñu am loolu.

ah man ne nit ñi gi ni ngay gisee ak man ni nga gisee bokkut da nga football nga gis condition yi nekkee woon regarde maintenant le terrain même du fekkee ni on est pas à 100%. pour cent franchement am na fu ñu fu ñu jógee am na fu ñu àgg fu ñu toll j'ai toutes les 14 régions yépp a am un stade de haut niveau praticable toutes les régions on vous manqué je viens la semaine prochaine de Kédougou sur demee Kédougou tu trouves solaire Nous avons lay fubal Tamba pelouse Thiès nag moo je mais heureusement que les As ont pu les le tir gars, am nañ stade euh, La Dior mais la Dior même tu c'est un stade fédéral il faut que les autres de Thiès la waa ligue la Wa mairie nous ñu dire ñu jox

bon euh, franchement du ma euh, grand bi de con grand Saif Diallo hein? euh, euh, Bibi Sarr Yunus Diop Fallou Ba hein? gars sont des références Johnny hein? Johnny Si je limee ni aussi am ma ay fi ni ku leen terrain rek da nga naan et aussi il y avait une très bonne réputation de Thiès euh, je me rappelle j'ai fait une petite analyse Thiès rek la gis nawetaan ñu fula koo pare amul xuloo amuloon xeex ba daaw y a ni violence amul à amul tal amul à mon amul rey amul daj parce que Bobo Thiès dañu amoon ay valeurs et je crois ces valeurs yooyu ñu war dellu dellu ci waat valeurs ñu ci ñun donc c'est à nous aussi de l'inculquer à la population aux supporters supporters yi stade le comportement des joueurs qui détermine comportement comportement des Le fait qu'il y amul coow ci de biir ci Tibir eh, eh, et puis ce que man tënk la suñu les gisee maak man de li ma li ma li nga xam ne moom lay wër à chaque fois su ma fulee pare mooy ñëw nga xam ni seqoon naa ko ak ñoom. parce que àdduna bi on on sait jamais suba mën nañu xëy xëyaat dajawaat nga su ma naree néewal doole nga taxawuma kon c'est-à-dire que ñu ay kees wax lañ kon un élément de Thiès war taw xuloo wala ŋaayoo wala xeex ak un élément de Thiès et de surcroît un élément du Sénégal bon voilà man sama position position ci loolu en tout cas. Euh, le ma c'est wax parce que le football c'est de l'art football c'est de l'art non seulement tu te fais plaisir tu fais plaisir aux autres mais aussi tu éduques les autres c'est le comportement d'un jeu qui est important Je ma gis wala mo def c'est quelqu'un qui m'a marqué gis mu jaar yenn watu il est correct un footballeur est correct par essence il faut être correct dans la vie parce que ken xamul sa image nous koy véhiculer donc ça dit que pour man sur le ci terrain c'est un comportement irréprochable voilà parce que ci tu ci le leen ñëpp nawee ñew tu Sadio Mané c'est son comportement irréprochable c'est son amour de Sadio Mane c'est une c'est c'est un modèle soo jëlee modèle moi sont référence il est référence dans le jeu il est référence dans le comportement il est référence dans le social il est référence dans tout donc ñun ñëpp loolu ñu woon je crois que si ko defoon on aura on aura gagné un peu le pari du foot am solo euh, jaar nga ci fi ñuy wax Union Sportive jaar nga goré jaar nga fi wax Douane. Mm. oui joué ngeen mhm. lam toro ban entraîneur nga jaar ci ay loxom sentir ni ki daf la marqué. bon je crois que celui qui m'a marqué c'est Thioune. Oh, Thioune. parce que c'est le premier moom moom mu njëkk wax il faut jouer sur tes valeurs. Tes points faibles, tes transformes en points forts. Je n'étais pas rapide. Je me tout ça m'a daw sur 10 mètres, à mon de réaction, mais sur 20, 30 mètres, de mètres, Donc, moment il faut être, développer rapidement, jouer à une touche de, touche de balle et tout faire pour ne pas être blessé. Donc, moment, moment, moment bon ils m'ont accompagné ku ci nekk lu xam ne xawoon na ma lu ma manqué gaa même su bëriwul woon am na ci bon c'est am na kooku dafa yàlla jël na ko moom moo nekkoon Clément euh, Diouf moom bon moom aussi il m'a marqué kenn aussi c'est Lamine Dieng Lamine Dieng aussi il m'a marqué moom ak Mawadou Wad Mawadou Wad il m'a marqué parce que je crois que dama doon football raay sama premier match ñu dem Saint-Louis ma me bu 13 minutes Je euh, ma passe le bi bu ko contrôlé maa ngi dégg Je ci kaw stade bi man dafa ba ci ñew ma taxaw mo hmm, hmm, je reprends mot à mot wax jeune homme tu es qui tu fais la passe quand il la faut tu débutes quand il la faut tu me rappelles Sébastien Babayaro j'ai pas vu un joueur comme toi dans, dans, ce monde Je ne que je sais pas je n'apprécie pas mais après je su que le football c'est de l'intelligence en mouvement intelligence passe contrôle savoir le temps fort savoir le temps faible savoir gérer donc voilà c'est un ensemble Le football d'Albo, c'est quelque chose d'extraordinaire Je ne match sais pas comment

football défendre ça totalement totalement le foot c'est deux choses il faut être prêt physiquement athlétiquement sur une ñu faut la discipline être prêt. Il faut être prêt. Il ngay koy football koy parce que sont des schémas sont des plans de jeu être ngay jaar fi ngay taxaw a contrôler rek contrôle bi sax il y a beaucoup de contrôle contrôle de dégagement contrôle à gauche contrôle orienté bon voilà ils bon voir une peu mais lu ci c'est que le football c'est industrie si tu n'est pas un projet mën ngaa parce que c'est ce qui gagne présentement ñuy gagne fille, je dirais Ligue 1 soit ce sont Jambar, génération foot Et de plus en plus Garaf, ils ont un projet Ils ont un projet Casa ils ont un projet

sport sur Thiès Média nous invité ko xamantene ne Lamtoro qui mag ñi gis et ça fait l'occasion pour que nous indi ko suñu plateau waxtaan ak mom tay ji mu wax ñu fan la et tout donc rek 100 pour sur Thiès Média dama gis ni que dafa am euh, football mm-hmm. jàng école. Mm-hmm. xey mm-hmm. concentré wu ci football bi. te so xolé ci 100 footballeurs Maintenant, quel li réussir mhm. est-ce que loolu problème c'est pour que club de nga York yor temps que mhm. ñuy faisons école mhm. nous surveiller et tout parce que c'est le cas de Djambar Nous sommes boy dañuy dem di jàngi école di ñëw di entraîner parce que su à un moment donné il y problème a un problème. c'est important mais mais il faut avoir des bases les qui présentement du njàng sorry sore sore sore sore ñi mais il faudra avoir des bagages pour développer son propre donc moi aussi je vais insister éducation éducation de base soit muy ci ci ci l'école mais lu ci est nekk rek accompagner les, éléments de base pour te permettre de voler de ton propre, de zèle. Ce qui est important, moi, il faut savoir détecter très tôt, ils ont l'aptitude de il faut savoir détecter très tôt aussi, peut-être qu'ils mais aussi ñii duñu duñu duñu aussi dafa am ñoo xamné dañ sama doomu xarit la doomu la wala doomu la essayer xam nga jële duul ko ci biir bàyyi koo nga xamante ne tey ji boo ko xoolee mu laal bal nga xam ni kii moom mooy jour bi moo tax man la les entraîneurs sont différents les entraîneurs sont différents y a ce qu'on appelle des pépites ñii nga wóor la ni ñii dañ ko judduwaale ñooñu loo ci yokk rek mu dem mais ñi ngay jàngal dina xaw a yéex moo tax ma ni il faut savoir détecter moo tax gars ñi ils ont mis en place des académies et académies yi léegi macha allah soo demee ba Kaffrine am académie Dakar yana beaucoup Matam amna ñaari académie Fatik so démé amna académie donc je crois que toutes les conditions là pour que ñi xamni ñi son sont des pépites mën na jël football mais nak football aussi <laughs> euh, ni ni ni ni ni vie personnelle di mel non lay mel ni dañuy football yi yàlla wërsëgal ñu football ni dem jangi yalla wërsëgal len ni dem nek commerçant ni dem nek ferrailleur ñii dem nek en tout cas ku nek war am sa entreprise ba nga franchement développement Sénégal ku ne won na ci contribuer yow mi sax dima poser question il y la yalla mais sa entreprise qui ba nga nga xam di nga évoluer ba ba ba employer ñeen donc c'est ce qu'on demande c'est ce qu'on demande parce que dans la vie c'est comme ça daal c'est comme ça du fekkee ne bëgg Sénégal développé il faut que fu mu secteur d'activité fu mu ne boo c'est porteur de revenus, ñu export exploité ko à fond moo il faut daa aussi que ni nga ni franchement gàcce galama, ni top top petite catégorie bi parce que man sama sommes sama doomu bopp mi ci école de football di jàng di football di jàng mais aussi moo ko may bët du ma xamee ni kii ah yàlla may na ko disposition yi m'accompagne accompagné ko mais du fait ne xam naa ne yàlla aussi bëgg na may ko di yenn dispositions yi moom mu dem ci benn option bi rek parce que option yëpp yàlla kenn yàlla yàlla moo yoon ñëpp rek waaw parce que maa ngi nii <laughs> yàlla mun na xam mën naa fi am na tuut lu ma ci mënoon mais lekkuma ci yàlla fin la ma yóbbu ba bon àdduna bi lépp matut mais ñu ngi sant yàlla parce que man li ma ñaan li may ñaan yàlla yàlla du bëri man damay sant yàlla dama ko sant rek fu mu mën toll damay sant waaw lu ma jox rek ma jël waaw mais taxaw di ñaan yàlla ma yàlla def lii ne loolu moom tiwuma loolu. damay euh, sant yàlla lu ma yàlla jox ma jël yàlla moom dëgg-dëgg boo ko santee rek mu dolli la lamtooro et ma ñëw na ci li nga xamante ni tey jii mooy euh, euh, petite catégorie bi comme ni nga ko waxee sànq nii. Mm-hmm. man dañu gis ni que petite catégorie bi. tey jii dafa dama jàpp ne am na ñoo xam dañ leen yor te lañ leen di jàngal demewut noonu. Mhm. gis nga tey jii pour tette xale. Mhm. dafa am noo xamante ni mën na ni moom ngay doxe te mhm. gis naa ne tey jii la majeure partie ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy tette xale yi. nga gis ko xëy rek ubbi benn école de football am fee. jàng ko fenn. munu ci leneen lu dajale xale yi laaj leen benn. weccit ñu koy joxe par fin du mois. est ce que loolu aussi du gën a li nga xamante ni mooy football petit catégorie. Ah, dafa am ñoo xam ne dañu ko ñu dénk ñuy encadré sport bi mooy l'inspecteur régional de sport inspecteur département de sport suñu gisee kenn ko xam ni dafa romb parce que ñoom loolu la dañuy dox ci bedd bi dem di vérifier vérifier di suñu gisee kenn ko xam ne ubbi na école te amul te amul kii mu tas ko <laughs> mais c'est la répression pas une pression, truc mais il faut tout est encadré tout est encadré te lépp fa la nekk moom mooy initiative l'initiation de base bala nga ubbi école de football dafa am foo war a jaar am ay sat am ay kayit waaw moo tax man la am ay kayit ba pare jàng ko parce que xale day resté li nga ko jàngal rek lay wa lay lay lay xam te l'éducation de base est importante man su ma jëlee sama doom dénk ko kenn waxuma sax football bi mais à travers football bi da ko da ko war a jàngal ni nga xam ni noonu la war a comporter wu dans la vie waaw moo tax ki ma ko jox c'est c'est pas excuse moi le foot mais c'est son comportement su ñëwee nag si comportement naa gis mu sumi dàllam mi rangé sumi mayo bi weer kon fa lañ ko jàngale suy dem solu jël bagage am lem denc suba suy xëy kon xam nga loolu loolu loolu am njàng am njàngal kon à part football bi am na lu mu ko jàng mosuma ko dégg mu saaga soo waxee mu ne coach coach nee na coach nee na coach nee na te li ma wax coach nee na lépp li ma sama papa doon jàngal la kon ça dit que ne kooku gàcce ngalam waaw di di ko jaajëfal di coach laay muy fii ak ñeen coach yi grand euh, bi ñu gis sànq bon donc c'est tout ça en tout cas bibi ñi nga xam dal ñoy jor ñi nga xam ne petite catégorie 5 ans jëm kaw ba 10 ans ñooñu il faut gàcce ngalam toro ban match nga joué ci euh, première division bo xamante marqué na la marqué bo xamante ni toj nga ko ou tojuloo ko ou nga am ko xam dafa la marqué ci match bi sonal la 8 ban match nga ci mëna jox ci bobu bon c'est mon premier match de championnat c'est jusqu'à 195 ak Jaraaf. waa Jaraaf euh, dañoo football moo c'est remplaçant ñu football ba mu des 12 minutes ñu may ñu 3-1 ñibbi. c'était à 10 ñu ñu commencé ñibbi bon man su ma naa samay samay daal de boobu moomay bi ñu jógee deux changements dem trois changements ñu def deux changements yi mosuma sama daal ne tey du football. 12 mm-hmm. minutes moo des ma jug di dem tunne ma foo jëm ma ne ko ma ne ko damay ma ne ma kaay dugal. mos sama dal je me suis rappelé dama dugg ñu passe ma ma paas Cheikhou si kii dugal euh, Faye deuxième balle bi ma ko troisième balle bi ma passe, Bas mu rate ko donc en 12 minutes on a inversé la tendance ñu égalisé 3-3 ba après, dinañ dugal ñu leen trois troisième trois quatrième but donc ça m'a marqué parce que aussi football n'a ci à l'espace de 12 12 minutes j'ai touché 57 ballons 12 minutes 57 ballons. 57 ballons comme on doon wax loolu la mooy tunu jàngal fu espace am rek ma dugg fa teg benn pouce teg benn pouce donc voilà voilà ce qui est important loolu laa amoon euh, lu ma wax ci loolu maintenant ku may marqué euh, football football, footballeur moo marqué j'ai pas j'ai pas vu koo xam ni même man muy football sonal non en fait c'est ça le problème sonal bi du du métti non ah bon peut-être euh, sonal ci j'ai pas j'ai pas vu j'ai pas vu parce que man ni ma ko woon jàppee su may football euh, même suñu dee adversaire man pour man on est des amis lu ñu moy mooy bal bi su démé mën nañu waxtaan su ba mu ñëwee ku ne def lu muy def ap ap mu jàll donc y a y a des gens ñoo xamné aussi euh, sa pour ñoo xamné suñu sama sama ki lañu ñoo bokkon bokkoon fu footballé que ce soit des Sédou Tavares Laye Tavares yow gisee euh, soo demee Medina Fall les Sayers, nga dem euh, yenn côté yi même Ousmane doon ñëw football mais donc bokkuñu bokkuñu fédération mais je crois que dal on jouait qui euh, euh, les déjà suñu nekkoon en tout cas on jouait ensemble mën football tay avec bi yéeg mais demain suñuy parti stade bi pare ci ay gars nañu. bon on était ensemble en train de rire donc là loolu la ko loolu quoi.

encadré nañ ma di sat ñi nga tamit nangu nañ nangu nañ ma encadré leen mais aussi di sat ñi nga xam ne am naa ak sam ak ñoom que soit les anciens du rail anciens du goré aussi des fois ñu woo mais ancien rail ci la gën yëngu euh, mais aussi so gisee Thiès amoon na fi ñuy wax regroupement des vétérans de Thiès aussi dinañ ci yëngu mais aussi présentement ni euh, bi nga xam y avait une léthargie au niveau du du du du de Thiès on m'avait euh, Wildan FC ñom approché je suis dans le comité directeur de ligue. ligue bu ñom que ce soit le président Algaf Diagne wa Ligue bi wa Orcave wa Onca en tout cas je suis un élément de Thiès et je suis un élément un du sport et qui dit sport le foot handball pétanque Moi, je rek man c'est le sport qui est qui important pour moi parce que le sport est fédérateur surtout le football est un vecteur de développement voilà aussi de la santé de la de aussi euh, sama sama sama xarit yi ah, di sama m'a Tavares euh, euh, ak Bala donc là c'est important aussi euh non non non non non non bon pas pas Simbakat koku nit nit nit ko nit ku nit nit nit ku xam nga wax

a euh, ci ancien raay yi Amidou Diop euh, ñëpp daal su ma limee jum en tout cas seen association bi nga xam man à chaque fois dama ciy dem mais lu baax rek nga fay parce que c'est de l'entraide c'est de social zaal mi nga xam ne football asfa donc yow donc voilà Dal. en tout cas képp koo xam ni war na ma le football Thiès war nga ñëw de ci loxo nga militer ci benn équipe que nga militer ci raay nga dem ci Thiès FC gërëm ci amitié en tout cas tout ñu ngi laaj njaan ñëpp ñu ñëw parce que dañoo war a delluwaat Thiès instant bi nga xamni Thiès amoon na quatre équipes Ligue 1 ñu wat fa 4 équipe Ligue 1 mu wat fa mëna nek nek na ku nek ku nekk ku nekk ku rek je crois que c'est c'est important de remercier yow mi aussi ak sa sa caméraman di jeexalee di ñaanal sama yaay ak sama sama sama sama famille ma femme hein mes mes enfants ok mes sœurs.

ñun bu football suñu quartier ñu football c'est la appartenance au quartier. C'est Tavares mosu ko gis mu football feneen. té pourtant je sais que ni y a des offres yo xamné ne ñoom football benn équipe demut man on a fait de beaucoup de propositions kay football Louga kay football nga man dew parce que man sama quartier la amoon. té lolu suñu bu ko def c'est tout juste ni ni ni ñu meloon moom mooy suñu football ba paré man dama football paré dem ci ceebu gis Seydou gis lay ñep waxtan Kaffrine da dem parce que 90 000 la le reste c'est pas important maintenant ni ko jëlé mom moy acteur ci biir terrain bi ni ñu mel rek les supporter yi mel. Mm-hmm. donc il y a doit avoir un discours ni wax discours vestiaire il doit avoir un discours au niveau du quartier. un discours mom moy le président taxaw le représentant taxaw wax ni sans violence ñun ni lañ bëggal mu démé non lay démé moo taxoon c'était Thiès en référence Thiès mosu fa Téné teene bu ñu yàq nangam-nangam mais bon euh, donc c'est le mouvement mais aussi il faut daa voir que aussi qu'il y a une nouvelle génération buy ñëw il faut d'un ñu jàngal leen. soo euh, match yi tey ji nañu football évolue non? surtout fii à Thiès parce que da ngay joué ji guddi gi. Mhm. ñun bi ñu football 3 heures nga le football naaj bi tàng ah, jër. tey ji ñu décalé ko ba tollu foofu parce que am lumière am terrain bu mhm. maintenant su match yi jeexee. Mhm. ñu du matin 3 heures du matin. Mhm. C'est compliqué Si fa jógee violences, ci la est ce que loolu darul taxaw setlu ah mais dina taxaw mais c'est pourquoi gouverneur yi wala soo gisee mais ba 20 heures h moi je suis d'accord. donc on peut revenir à 14h. Nous sommes ci ci kii 14h, 19h, 20h, et puis nous calé ko période bi ñu calé période parce que aussi le nombre de d'ASC day je dis qu'il y' a plus de 7500 ASC à travers le le le plus de 120 ASC donc les grands ensembles football ko mu chacun scientifique ci ben ci ben ci ben dox suñu bari des bolé des bolé équipe hein? c'est les grands ensembles L'équipe de ñu affaire bi et puis tout le monde se retrouve dedans et puis dañuy jàngal suñu rak jàngal suñuy jarbaat jàngal suñu doom les comportements et les vertus ak valeurs yi nga xam ne football moom lay joxe loolu lañu loolu la ñuy fàtte y a des valeurs yoo xam ne soo ko amul tu n'es plus un footballeur valeur respect de la personne engagement dignité loolu la mais c'est ça dañ ko commencé suñu kër ku ne yar say doom ci quartier bi ñu accompagner ñëpp accompagne ñu yar doom ci quartier bi suñu pay ñu dem ci au fur et à mesure ba àgg ba ba ba Sénégal je crois que c'est c'est ça. merci beaucoup chers amis téléspectateurs Dans ñu doon à travers euh, Thiès Média tey nag dañu amoon un immense plaisir de dalal ki nga xamante ni moom mooy Lamtoro l'international laa koy woowee il a montré ses produits ici à Thiès. ak ci biti ñu bari sax xamuñu woon ni euh, joué na douane jouer na Gorée euh, am na fu mu toj et tout kon nag dégg ngeen wax ji. Euh, fi ko campé tout le temps rek moy luy defar parce que Thiès ñun li lañ xam nañ fexé ba nu suñu football bi développer nañ fexé ba delloowaat suñu ay quatre équipes wala lu su ko upp sax en première division ñepp mën di dem di seetaan yi kon su ko défé nak mbokk xarit yeeg am di jaam yi doon à travers Thiès media li moy 100 sport nii rien que les defee saa su nekk dañ la fekk sa kër wala ñu fekk la sa bërëb ba ngeen liggéeyee wala ñu fekk la ci terrain football yi waxtaan ak yow li nga xamante ni sport mais nag du football kese basket mi ngi lutte mi ngi handball mi ngi fii di jaajëfal ñi nga xamante aussi waa raay yi doon joué tey handball Nous ñoo gagné seen match di leen féliciter di jaajëfal ñi nga xamante aussi maman dirigeant yi su ko defee rek ñu jox leen dig daje ci beneen émission inshallah merci beaucoup